simile wàllu njàng meeg njàngale mii école di waajee tëj ji ah mbir mi daal lëndëm na dara kon leeru ca bu ñu sukkandikoo ci direct fo secrétaire généralu SAEMS CUSEMS Mamadou Lamine Diante moo yëkkati kon kàddu yooyee te bu ñu sukkandikoo na ci Mamadou Lamine moo mais la mu xamle daal mooy kon xam nga lan moo indi kon wàllum blocage bi ngeen gis ak jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la ñu dund ni ci wàllu njàng meeg njàngale mi du kenn ku dul gouvernement bi nga xam ne daal wane na carrément ne xoolal nga ñam nekku ca faalewu leen amu ci kenn gennu yi nga xam ne kon moom la ñu dund ca l'école ba ca école ya ne école yooyu yee nga xam ne kon dafa am ndox maanaam inondé ak école yi nga xam ne maanaam sinistré yi kon ñoo nekk daju ca wàllum inondation yi kon di wàllu mbënd ma kon indi ko jàpp leen ne école yooyu yëpp laata benn fan kon ci weeru octobre bii di ñëw nii ñu génnee kon ña nga xam ne kon ñoom ñoo fa nekk laa ilaha illallah réew mi quotidien ne école yooyee ma ne la xoolal danañu kon sinistré yi nga xam ne kon ñoom ñoo fa nekk yëpp fii ci diwaanu Ndakaaru ñoom ne kon mbënd ma nag moo leen lor maanaam sinistré yi ah, nekk ay SDF maanaam kër goo xam ne kon kon foofu la ñu ne fa la ñu dëju foofee kon la ñu dëkk te boo ko xaymaa ñeent fukk ak benn kon ci ay école fii ci ndakaaru njaay jël jóob kese ña fa nekk yëpp war nañ leen a kon génnee ci Dakar gii te Casamance gee fitna ga kon ma ngay wéyandi ba léegi ni lee Sud Quotidien amati na kon yeneeni song yoo xam ne kon ni mu ku nañ ko ci diwaanu Casamance goo gee ak fitna ga jugati na fa de askan wi ci boppam laa lay wax ni fitna goo xam ne nag fi mu nekk nii la ñu nekkee njàqarek tiis waaye ca jamono joo jee kilifa yi daal ñu ngi fi di mbel mbeli rek mbel mbeli rek wax rek wax rek réew mi Quotidien kilifay sax xam nga lan la ñu def ca Casamance googee <clears throat> maanaam waa kër Salif Sadio rebelle bu mag ba waaw goxam ba daal di village am ba ñoo doon xarafal di jongal kon seeni doom nguur gi yëkkati ay téeméeri téeméeri million sotti leen ko kon def ko ca xew ma ca yàlla le quotidien ne député CEDEAO yi xam nañu ko léegi de waa Benno Bokk Yaakaar tonni nañu juróomi député yëpp waa PDS ña ak benn baa ma waa APR bu Macky PS bu Ousmane Tanor Dieng AFP bu Moustapha Niass ñoom daal ñoo séddoo député yo réew bu Idrissa honorable député ñooñee kon dañoo mujj nag maanaam gedd kon xew ma plénière ba Moustapha Diakhaté njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci Le Quotidien yéeni kaay nee na am na ñoo xam ne jox nañ leen ay ministère am na ñeneen ñoo xam ne kon ñu ngeeg ay direction dama ne day jafe nag ngir nga am lépp ah waaw waaw Le Pays au Quotidien ne Macky Sall day faf na sax na tëj wax ja wax ja ca boppam maanaam dëj na ko Macky ku loolu débat Macky Sall ne je nomme eh, la wax lii Pape Niang waykat la ci bi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne am nañu kon baccalauréat te nekk ay silmaxa duñu gis na leen kon takk der yi def mitti na ma torop torop torop te man pap ñaa mënumaa gëm ba léegi nii ne takk der yi maanaam ñoo jàpp kon silmaxa yooye nga xam ne dañoo am baccalauréat dóor leen ba maari di taali le populaire ne bureau politique extraordinaire bu parti socialiste ah Ousmane Tanor Dieng day daa xas Malick Noël Seck ba maari di taali Abdoulaye Wilane mi yokk xar mi karaw nee na est-ce que yow Malick Noël Seck mi est-ce xel mi kon ne imaam Cheikh Ahmed Tidiane Sall dellu siwaat na nag ci dog-dog bi nga xam ne kon maanaam moo ko daboon ah waaw waaw imaam Sall ne maliens ci boppam kon ñoo daw ak or ba ak lu ci tolloog ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ay millions man islam kese moo ma intéressé man Cheikh Ahmed Tidiane sal mi li ma intéressé waat mooy lu neex doomu aadama yi la Chérif Ouldumami mi nga xam ne kon moo nekk ci digg mbir mi xam la nag carrément ne xaalis boobee yëpp dana ko fay dem na ca lamb ja le pays au quotidien ne la ñu koy toppee te nag attention procureur ci boppam kon mi ngi ko teg na gët suñu làmb ne xibaar bi ay fan su Boy Niang 2 bu ñu ko déggee ñu kontaan ah waaw waaw yéen kaay gi ne Boy Niang 2 moom mais doomu dégol gi waaw waa CNG ñu ngi ci ay tànk baal ko maanaam gracier ko baal ko complètement i la ilaha illallah ah maa la wax lii CNG ci ay tànk baal Boy Niang 2 ci bu ñu sukkandikoo kon ci ay xabaar le pays au quotidien ne jongante gaa nga ne de match baa nga ne la de ah xale yu jigéen ñi nga xam ne maanaam kon dañuy jaay seen bopp ay xale yooyee la ñuy footballé seen jongante daal ñu ngi koy amal vira Mirage Pointe des Almadies chez Iba Farafeñe waaye nag la ñuul kon ci jaay bi nga xam ne ñu ngi koy jaay seen bopp nii mooy tabaski bii di ñëw seen prix yee wàcc njëkk ya ngi daan bopp ak léegi tollootul ndax tabaski bi nga xam ne kon mi ngi dikk <laughs> la laa ilaha illallah jënd xaridee lan nit ñi gën a tal jënd ca jigéen ñooñee ndax balaa nga naan naam ne fa alaaji tëyal